réewu Sénégal amati na coow mu ñeel élection présidentielle bi nga xam ne ay ayubés rek moo des ñu dal di koy amal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 li waral lu ni mel nag bari na bokk na ca parrainage mi nga xam ne lu in lu ëpp ci coow li moom moo ko waral ndax nag naam amoon nañu ab déggoo ci diggante majorité présidentielle ak ñenn ñi nekkee ci këru kujje gi waaye mu mel ni mujjul fenn rëkk-rëkk yi ñu seetlu ci loi bi ñeel wàllu parrainage ñi nga xam ne bokkoon nañ ci dialogue national bi nga xam ne njiitum réew mi Macky Sall moo ko doon amal ak ñenn ci ay parti yi nga xam ne nanguwuñu woon teew ci boobule jaloog ñaawlu nañ ko bu baax a baax ñaxtu yi nag bokk na ci ni ñu amalee parrainage bi fichier électoral bi ak tamit bile logiciel de référence bi nga xam ne ci la conseil constitutionnel doon liggéeyee beneen mbir boo xam ne moo waral yile coow mooy conseil constitutionnel bi ndax ginnaaw ndogal yi nga xam ne bàyyeeku na ci juróom-ñaari sages yi ba ñu fësalee liste définitive ñaari fukki candidat yi collectif bi nga xam ne moo ëmb candidat yi nga xam ne jàlluñu ñoom ñu ngi bañ lu ni mel parti démocratique sénégalais bi nga xam ne seen candidat mooy Karim Meïssa Wade euh, te ñu éliminé ko ndax ne dafa am ñaari nationalité mer bu futu la def ba tax sax mu fas yéene dal di dem fu mba xam ne doone benn mooy juridiction yu nekk fii ci réew mi ak ci biti réew ñetteelu mbir bi nga xam ne jur na yooyu le eh, coow mooy processus électoral bi nga xam ne ñiy yëngu ci langue politique bi ak waa société civile waxtaanu ba déggoo am ci moo tax ñàkk kóolute googu ak ñàkk waxtaan googee moo dal di nasaxal présidentielle bii ñu jëm ndax anam yi ñu taxawalee commission électoral national autonome di Sénat te décret présidentiel dal di koy def amal ab audit ci ni ñu defee mise à jour fichier électoral bi ak it ni ñu jëmalee li nga xam ne mooy parrainage ñàkk déggoo gi ñu ñàkk déggoo tamit ci logiciel bi nga xam ne conseil constitutionnel liggéeyee na ko loolee yëpp ay rëq-rëq la yoo xam ne dafa ñeel processus électoral bi te loolee nag mun naa doon ab gàkk-gàkk ci yële élection kon ana naka la ñuy mën a def ba mën a génn ci coow ak fitna yi nga xam ne mun naa juddoo ci yële élection dafa jot ñu dal ci amal ab waxtaan mënut ñàkk ngir ñu mën a amal lii di démocratie élection démocratique nag yu leer te wóor soo ko bëggee am dangaa war a amal ab déggoo ci processus ba nañu koy organiser waaye itam fexe ba kenn ku ne ca wàll ga mu ne dal di nangu règle yi nu muy tëddee bu fekkee ne yooyu les conditions yëpp nag boole nañu ko day tax bés bu ñu ci jógee lépp lu bàyyeekoo ci urne yi rek askanu Sénégal dañu koy dal di nangu ba noppi nag dal di koy gëm.